mu dëkk biir jàmm gën yëmbal caaroy pikin ñëpp rek di xaar Samba woote pour ñu mën cee dem kii waxuma sax banlieue bi mais waa Sénégal ah konk ki nga xam ni mooy Grand Yoff Parcelles ah Ouest Foire Nord Foire nga boole ñaari xale yoo xam ni euh, le Sénégal booy ak euh, ki nga xam tarkal la moom <laughs> mooy euh, l'incontournable ah le Sénégalais noble ñaari xale yi nga boole leen Raf Prod moo ko tëgg ñu doon wax mënul nekk parce que dégg nañ fi ay coow yu sew fan yi passé di ba euh, ki nga xam ne mooy samba sàmba dinañ laaleeg dun laale waa reptile naan lii raam ci ñag ba la jëm yooyu yëpp ñu dégg ko ñun xam nga dañuy dégg lu bari donc ñoom ñu ngi fi toog dinaa maye benn ticket bu VIP prestige euh, samba maye benn dib maye benn awagay dina maye benn ki nga xam ni mooy Samira Coulibaly maye benn benn ticket bu ci nekk day ànd ak li nga xam ni moom mooy bracelet ah. donc dañuy bàyyi kan ci ñoom ñaar mu njëkk a nuyoo bu ko defee ñu doxal euh, dem ci li nga xam moo waral ñu invité leen tey mooy def promotion vendredi ca Grand Théâtre salaamaaleykum Dip waaw salaam Aba maa lay nuyu di ñëw nuyu ñi nekk ci plateau bi di nuyu sénégalais yi di suivre yëpp leen wax ni Dip Doundou Guiss la ak Samba Peuzzi Grand le 20 mai incha allah ak ak donc bëgg nañu xam ci kanama wax euh, organisation beeg yëpp nan lay demee euh, prestation yi tamit nan lay demee ay bag la wala ay live la loolu yëpp dinañ ko waxtaanee ak suñu ay invité tey euh, salaamaaleykum Samba Sénégal boy. yow yow yow Samba Peuzzi la Sénégal boy from Jack to the world maa ngi lay nuyu Aba xam nga yow da mun tooñ di nuyu. samay xarit ngeen plateau yëpp xam di nuyu Sénégal yi ñuy suivre yëpp leen wax ni que rendez vous bi leer na vendredi 20 la incha allah Grand Théâtre show show mosul am si live mooy am incha mais nu waxtaan bi euh, naka la waxtaan bi demee euh, Raf Prod ñoo waxtaan ak waa Reptile wala Raf Prod dafa waxtaan ak Dip waxtaan ak Samba Peuzzi donc noonu lay ubbee suñu waxtaan bu ko defee Awa Gaye ak Samira ngeen bañ ma cee bàyyi ñu dugg ci waxtaan bi euh, kan la ñu kan moo waxaale kan la ñu wax par kenn la wala li nga xam ni moom mooy structure bi moo waxaale ak Raf Prod. non Samba business la. Mhm. Dip business la donc. ku nekk dañ waxtaan ak moom si côté toll nañ foo xamante ni même reptile biir reptile ku nekk am na studio am donc ça veut dire que famille la ñun ñëpp benn lañ mais teewul ku nekk mu ngi avancé de son côté quoi. Mhm. parce que c'est bien ñu avancé ndoo mais c'est bien aussi ku nekk tamit di di di di am liberté am quoi. Mhm. exprimer wu demal boppam donc euh, ku nekk dañ ñëw contacter la sa côté. parce que egg nañ foofu quoi. waaw loolu la. du coup est-ce que ça t'a fait bi nga yëgee ni que ñi ngi soxla benn collaboration entre Dip ak Samba Peuzzi yow en tant qu'artiste lan la la def. waaw moo tax nag moo tax mu jaaxal ma. Eh, une question très pertinente day bañ collaboration parce que. am na événement bu ñu doon waajal ñu tëgg ko moom ak beneen rappeur. mu ñeet je pense. mu ñeet ñeet bu catégorique ne du am ci nii du am ci nii la ma am lu ma ci yëg man. ndax waa rek la man la ko waaw benn la quoi maak moom du ma ne ay mag ak rakk wala ay famille maanaam benn benn benn nit bi la quoi. waaw dafa mel ni benn nit lañ tëgg rek parce que du affaire musique quoi. dépassé na loolu bu yàgg. di dem ah. waaw bu yàgg sax. Mm-hmm. waaw dañuy fréquenté damay dem seen kër day ñëw sama kër. xamante nañ suñu famille donc. Euh, c'est la famille quoi man su ma déggee son Samba day mel ni sama son laay déglu quoi. te te je pense que pour pour moom tamit. waaw mhm. c'est la famille. comme ne euh, maa ngi jóge ko Gambia. Mhm. Euh, te yàgg nañu seetaan dip yàgg nañu euh, dégg dip balaa Samba ñu ngi doon wax naa ne Samba sa sa booy la woon sa groupe la bokkoon sa rakk la yaa ko doon train yaa ko doon jàngal li nga xamante ni daf doon row nekk di roy ci yow and stuff like that so ma bëggoon rek ñu am benn leeral foofu noonu. non mosuma ko jàngal dara parce que Samba I think moom sa icon la right. waaw loolu dafa leer Samb sama rakk la. yaa soo ko jàngal. non xam nga tey boo xoolee style Samb ak sama style sa bokk. moom il te été xam nga xool na yoonam. xam na yoonam dem si yoonam. Mm-hmm. parce que ñun dañ doon toog sax parfois bu ñu toogee studio mu tegal ma son man sa des fois du ma comprendre. Mm-hmm. mais tey léegi ñëpp comprendre nañ Samb fan la doon jëm. Mm-hmm. donc du ay jàngal wala affaire yooyu noonu non non non. ñëw na ñu bokk yàlla def ñu bokk yoon man reptile daa am ñu ma fa fekk. moom mu fekk ñu reptile donc yàlla def nii voilà mu observé xool affaire nu muy demee mu dem affaire bi marché man ma observé xool dem mu marché mm. jusque dama ko si njëkk xëy na ma mag ko aussi mm-hmm. yàlla def ñu xamante ci ay circonstances yoo xamante ne peut-être ñu bëri dañuy jàppee comme ay frère mm-hmm. mais ay jàngal ay non non yow tamit sàmm mën nga tontu ci yow tamit sàmm mën nga tontu ci may wax moom leen la xama like dib mën naa ne sama mag la quoi sama genre du musique quoi xama benn affaire la boo xamante ni maanaam maanaam bokk na si nit yu nga xamante ni tax nañ man ma ma gëm musique ma oh. gëm hip hop xama parce que tamit dañu ñëw mu jiital mu jiituñu ba pare di ñu di di di ñu wan yoon quoi yaa ngi ñu wan yoon ba pare xama jàppee ñu comme boppam yaa ngi comprendre surtout man jàppee ma comme boppam xama ñemel ma ma ñeme ko mu ñemeloo ma boppam comme noonu lañ koy waxee mu ñemeloo ma boppam affaire yu bëri xama affaire yu bëri suma si siy dugg da koy yëg affaire yu bëri su ma siy dugg da koy yëg xama mën naa ne amaana mën naa ne man su ma su ma demee ba ba jël affaire bi daf ko ne dama métier la si man maanaam yàlla ak moom moom jeune si lu bëri quoi yàlla ak moom moo tax yaa ngi comprendre donc euh, sama brode la sama du musique quoi du dara sama brode la for life yee pour gars yi xam sama brode la for life la loolu ñëpp gis nañ ko ñëpp xam nañ ko yaa ngi comprendre parce que ku ne dib ne sàmba affaire bi nii soo gisee man dib bu xewlee ñu fay ma ñu bañ ma fay maa ngi si biir su ma xewlee ñu woo ma bañ a woo di maa ngi si biir maanaam lii nii benn affaire la boobante ni day wane que ni hip hop dafa jot ñu def ko business que ni ñun ñëpp ñoo bokk mais dafa am loo am ni au lieu que mu doon benn mën na doon ñaar loo am te ni kii am kii am yaa comprendre mais man su su dip xewlee damay ñëw man su ma xewlee day ñëw maanaam famille la affaire mënatuñ si dara dañu dem ba dañu bokk lépp incomprendre sama brother la. waa Raaf Prod ah waa Raaf Prod su ma amoon kenn ci équipe bi dama koy laaj ndax euh, ñaar ñi dem seeti leen ndax nekk na lu yomb parce que mm. du ñu ay rappeurs yu yomb quand même euh, ay rap man am na tuuti lu ma xam ci li ñuy xaw a foyeeku mais cher excessivement cher quand même parfois donc bëgg naa xam euh, ku ci nekk estimé rek xam nga dañu fi dégg dañuy <laughs> dégg dégg nañ Idrissa Gana Gueye sponsor bi lii la koy fay lii la ko PSG di fay par weer Sadio Mané lii lay fayeeku nangam ak sàngam donc c'est professionnel 75000 lay fayee ko biir TFM c'est professionnel tey dip euh, pour ñu bañ a dem directement ci prix bi ñaata euh, pour euh, à peu ñaata la ñu fay dip ak ñaata la ñu fay sàmb à peu près. ma fayee ma wax waaw dañ ma fay rek. non parce que. dip parce que dip grand théâtre lay waajal. dem defi ñaari dents or. ba ñuy yombul. Ah. def bi yombul. prix bi yombul or bu baax bi la. ban karaat la la. 65 pas passé na 24. voilà <laughs> mais di fi toll nii da nga encaissé avance bi nu muy taxee rek. da nga encaissé avance bi dem laali say ah. bëñ wala. ah da nga encaissé avance bi dem laali say bëñ maa ngi la gis nga def sa ah. benn photo reetaan ñan nga reetaan yeneen rappeurs di bàyyi tooñ.

def benn vidéo ñu ngi waajal yeneen vidéo que ñuy collaborer di boole artistes comme ça suba fii ak deux mois wala trois mois wala même un mois ñu tëggaat même événement bi wala yenen artistes def même chose affaire bi di tourner loolu lañ si gën a xool mais ñu si ay ñaata lañ fay diw wala ñaata lañ fay lële parce que ñun chaque chaque semaine dañuy fay chaque semaine nit dina la woo bu dul dara même bu dee lu mu ndaw ndaw ndaw dina la fay si benn affaire bu dul concert di benn publicité wala si sa droit fay bi moom ci milieu yëpp. na ci am ci solo am na ci solo am na ci solo bu baax sax mais pour fii nii moom le plus important du fay bi. mooy affaire bi réussir. mu mën nekk luy. amaat quoi. comme c'est une première. Euh, exactement ci réussir. voilà ah, ah, man damay laaj euh, dip laaj affaire about kii la about Samba. Euh, comme yow yaa ko jiitu si li nga xamante ni mooy art bi the hip hop. Mm-hmm. moom yow yaay iconam dans dix ans fan nga gis Samba. non dix ans bëri dans deux ans maximum. foo foo xam ne man sax dina ma dina ma bett. Mhm. waaw dans deux ans maximum. est-ce que foog noonu da nga gis benn futur benn av futur la ñuy wax. avenir mhm. bu bright si kii par rapport ak yeneen. artistes yi nga jël ko def ko si sa si nga def ko sa sa famille def ko sa sa. waay oo man gisuma dara. Oh, mais lu ñuy gën a dem. nga xool comportement xool nu muy solo xool nu muy wanee boppam nu muy waxee nu muy defee musique day xam ne kii am na fu mu teg bëtam. te àdduna moom boo xëyee ne par exemple waaye laa jëm. Uh-huh. dangay jël yoon bi dem géejawaay. Uh-huh. moom nag yoon bi muy jël fi mu jëm ñëpp xam nañ ko. léegi nag ku jël beneen yoon bu ñu la laajee da naan ah wax dëgg yàlla munoo wax fal. Uh-huh. munoo munoo wax fu sori foofu noonu wax ko fet moom fu mu fu mu nekk di teg tànkam nii. bu ko continuer moom man tamit am naa ci ah, kan man kii su paree am na laaj laaj ci dip Ah. Euh, noo gisee dip ak bari gi mu bari problème ku dem xulóog <laughs> moom loolu xam naa ne euh, di nga ñu ci tontu non man man par contre damay dem xam nga tey leeral nañ ci table bi ni que famille la histoire de famille la ñoom ñaar mais euh, ñi ngi ànd am nañ kenn ku ci nekk particularité c'est-à-dire bokkuñu même style musical man damay déglu musique xam naa ni dip da koy tàngal da koy tàngal ba mu tàng kii da koy tàngal teg ci Pape Ndiaye tama sama copain bi maa ngi koy nuyu mais j'aimerais savoir ngeen jox ñu benn avant goût ci le 20 mai bi Euh, Dip sur scène ak euh, Samba Peuzzi sur scène déjà bokk leen style musical comment ça va être. da nga bëgg laaj ndax ku nekk day way wàcc dem. wala am na ndax même bu fekkee dañuy duo wala nit dugge duggee ak nit très important très important. am na yu bëri yoo xam ne surprise la. mais képp kuy ñëw na xam ni 100 pour cent live band la. maanaam doy ñëw rek benn DJ taxaw non non non day am ñu nekk si ginnaaw guitariste claviste ñëpp. mu nekk dañuy defaraat musique bi ba mu gën a rafet ba mu gën a ba mu gën live mm. loolu lañ nar a def loolu moom waaw mën nañ may gën a bëgg ñëw exactement mooy Dip ak Samba si kaw seen en même temps non Dip ak Samba si kaw seen moom c'est c'est forcé oh, am na déjà am na ñaari son en plus am na yeneen son yoo xam ne bokk nañ ko ak yeneen artistes. donc ça veut dire que am na yeneen biir quoi. kenn kenn. non loolu moom loolu moom waaw loolu moom ku ko bëgg xam am nañu suñu ay billets euh, VIP prestige yoo xam ne dañ koy maye mais tey euh, boobu ba tey Samba Peuzzi mm-hmm. euh, gis nañ ko bi muy ñëw Samba dafa ñu tàmmal pain ñu ko doon wooyee sax la Wally Seck du hip sàmba tàmmal ñu summeeku def yaramu neen samba day sol huilé wala mu sol ay bling bling gëj na ñoo gis samba boobu même bu dee samba mu ngi jël léegi ay ballarge ay ngandi dàll mais samba bi ñëwoon grand théâtre yaakaar naa ay surprise dina ci am ah Abdoulaye xoolal clip bu ko ci may ci ñoom ñaar rek ñu xool ko ñëwaat léegi faaw ñu waxtaan ci la war a xew grand théâtre mais faaw ñu waxtaan ci programme yi nga xam moo ne ci hip-hop bi dañoo naqare invité boo leen amee tey balaa ngeen amati day yàgg <laughs> faaw ñu ak kii ak ak kee c'est quoi le problème waaw ñu waxtaan ak Samba parce que moom tamit ku amal di problème. am nga fi am am nga xarit boo xam ni Samba am naa ak yow problème. ayca <laughs> <laughs> waaw. nañ ma envoyé information yi muy Louis wala muy Jibi Coy wala muy ah, non non non c'est extraordinaire ba pare bi yi ñoom ñooy ànd bii mooy VIP prestige bi euh, ñi laaj ñëpp fan la ñu mën a amee billet yaakaar naa ne affiche bi suñu ma ko mënoon bàyyil sama ginnaaw écran ma mën di ko gis euh, di ci mën di xoolaale di waxaale dina am solo parce que SMS yi may jot yëpp mooy fu ñu mën a amee euh, seen ay billets même bu dee li ci des lu tuuti la même bu dee lu tuutee ci des ayca mën ngay wax billet yi fan lañ ko mën a amee. ayca mën nañu woote fi nga xamante mooy 78 588 94 94 wala 78 135 13 80 wala tout simplement au 77 179 34 34 ngeen mën a réserver seen i billets daal di ñëw fekkee ambiance bi bamtu fu ñu mën a amee. ma bamtuwaat ko. Mhm. ayca ma ñëwaat 78 588 94 94 78 135 13 80 am na solo mi ngi noonu d'habitude euh, da ngay gis euh, billet ñëw nga am euh, li nga xamante mooy de bracelet but boo xoolee fii dafa mel ni something new moo ñëwaat si ticket si mooy scan mi mm-hmm. Mm-hmm. maybe you soo jëndee ticket bi il faut que boo ñëwee dañ koy scan pour wane ne this is the authentic ticket mm-hmm. mu nekk système boo xamante ni man gis naa ko si Senegalese events yi te I think ne lu lu kii la Marie Louise Marie Louise yaa ngi jot daal di si yéen a ngi liggéey seen liggéey am na solo ñu ngi en direct suñu page Facebook TFM yaakaar naa ni billet yi foofu la ñu koy xool euh, ñan ñoom lañu koy may xale yi ñu ngi ñaan euh, billet mais di euh, bind seen ay commentaire yaakaar naa ni ku ci nekk bëgg nga assister show bi nga xam ni mooy am grand théâtre wax naa ni kenn ku ci nekk ci ñoom ñaar feesal nga grand théâtre ba mu fees dell waaye bu ñu leen boolee ñoom ñaar ci benn bis moo lay wan ni événement la et que Raf mu nekk euh, benn structure boo xam ni moom tamit mu ngi def nank nank mais liggéey bu am solo dañuy faral di gis ah. ay promoteur di jëlee yeneen artistes di leen indi suñu dëkk mm-hmm. mais promouvoir suñu artistes yi tamit c'est très important ah parce que ñun xam nañ li ñu mën mm-hmm. xam nañ ñun lan la ñu am donc euh, ànd naak euh, ngaaka Euh, kii euh, Samba ca Gambie ànd naa ak Dip ca France mu toog ay international toog mu wayal leen ñëpp apprécier donc loolu suñu fierté ñun lay def mais mu génne clip bu bees clip bi préparé li nga xam ni moom mooy événement bi mm. tey mën nga ñu wax ci clip bi ñu ne dafa cher mm-hmm. Dip génne woon na fi clip ñu koy estimé ci 10 millions Dip indiwaat clip mais bii dafa mel ni moo gën a compliqué man ci sama xalaat bu gàtt parce que man euh, damaa def calcul mental quand naa 20 ba 25 millions pour Dip mën ñoo leeral clip bi. nga bi waaw son bi ak clip bi. pourquoi le nom. pourquoi Khalifa Khalifa waaw reñ la rek reñ quoi comme d'habitude rek. yaay xalif bi waaw mais damay xool nu ma koy génnee rek. ok damay def ba génne foo xamante ni à chaque fois di nga di nga nga poser la question naan. pourquoi kalifa lan mooy kalifa mm. dem Google tapé kalifa affaire yooyu mais reñ la la calife mooy kii war a wax ki war xutba xam nga. mooy ki toog ci ki war a déglu daal waa ki toog xam nga mm. clip bi dépensé nañ ci xaalis bu bëri comme d'habitude e ñi si nekk déjà ñi ko def dañoo bëri. Mm-hmm. maa leen di remercier Ibra moom moo gardé moom moo dirigé projet bi Bilal waa Rivers ñoom ñoo def clip bi ñoo ko filmé ñoo ko monté euh, ñoom Yarba ñoo nekk ci déco bi Eric moo nekk ci réalisation bi c'est la première fois may def benn clip boo xamante ne équipe boobu yooyu yëpp ñoo booloo nekk si même vidéo bi quoi. Mm-hmm. donc ça veut dire que c'est pas un petit projet. donc euh, loolu moo waral résultat boo gisee di nga xam ne lii am na liggéey bu nekk ci ginnaaw et on compte comme ça quoi. ñu ngi laaj album bi ndax euh, lii album la ñuy avisé wala lii lan lay indi ñu ngi laaj. album bi waaw album album baa ngi ñëw ñu ngi ciy liggéey waaw lii benn kii la rek. benn sànni la woon daal benn alerte rek. waaw <laughs> tey Samba Peuzzi ci biir Grand Théâtre mën na nañoo xaar Samba bu summeeku sumeeku pour lan. def yaramu neen sàmba bi ñu daan am sàmba bi ñu amoon bi doon ubbi yëre bi ba fii waaw. sàmba bu wow bët bi. waaw ah, sàmba man man man changé wu ma. Oh, changé wu dama fu ma dem si contexte bi laay adapté indi samay affaire boob mais du ma ñëw du ma def lu ma gëmul quoi. su ma sumeeku koy jour boobu fekk gëm naa ko. Mm-hmm. day dépendre tamit ci énergie bu may bu may bu may ñëwee jour boobu. Mm-hmm. ak tamit public bi na lañ koy yëgee. noonu lay demee mais bon du déjà dinaa prévoir tamit ne su may dem lii laay sol su may dem nii laay ñëwee mais lu ma nar a def xamaguma ko incha allah parce que man à chaque fois day dépendre si nu may fekk foofu quoi. Mm-hmm. du coup Pam Ndiaye day ñëw. voilà Pam Ndiaye day pour foog gars xam ne ku ñu nekk genre like du du du ay du du théâtre mm-hmm. genre love la quoi benn affaire bu may jox ak public bi. su may joué ba public yëpp sumeeku damay sumeeku. mais doo fekk tamit hip hop boo euh, mag ñi dañ koo defar. Mm. nga ñëw indi indi fi yow bro ah, man damay musique yow bro damay musique rab yàlla dafa def dama ko mën. Mm-hmm. dama ko commencé musique def naa rap damay def nañ album. Mm-hmm. album groupe 221 xam nga like ñi melomaan yëpp xam nañ ni que booy bi like ñëpp nangu woon nañ quoi nangul nañ ma dara. Mm-hmm. léegi nag man boog sama si lu ma dum quoi maanaam dama jàpp que ni yàlla am na beneen côté bu ma may boo xamante ne nii. maanaam si côté le fait que ma ma ma war a di chantonné di jéem a way yaa ngi comprendre am na am na lu ma si am lu ndaw quoi ma ne pourquoi pas ma exploité ko alors que gisuma sama benn jeune wala bëriwul ñoo xam te ni ñu ngi dem ñu ngi dem si côté boobu noonu mm. te man peut-être am naa chance pour def lool dama koy def du ma nekk ma ne damay tëju ma ne damay rab kese damay def damay damay damay engagé si lii wala damay def si lii kese mais du tee tamit nekkul dama bàyyi di rab comme comme yenn sound yi ah. wala dara yëpp laay def feeling la a chaque pois lu may yëg rek laay def man bëgguma like nekk kuy topp public bi man public bi à chaque fois ñoo may topp maay diriger sénégalais yi like donc li ñu amoon na ci waxtu yaakaar naa ni euh, fi ñu toll daf ñoo dab ak courant bi bàyyi ñu benn yoon te xam naa ni am na beneen plateau boo xam ni mu ngi leen di xaar euh, fans yi nga xam ni ñu ngi seetaan Samba lan la leen Samba di wax pour ñu waajal euh, le vendredi et yow ñu ngi leen di wax like ñu ñëw rendez-vous bi le 20 la allah mm-hmm. vendredi 20 mm-hmm. ñëw leen ak ma brother Dip Doundou Guiss ñu ngi leen di jox rendez-vous incha allah dama bëgg nga jox leen heure bi. waaw mhm. waaw waaw waaw dama gars yi nañu ñëw fanaan. ñu ñëw. <laughs> vendredi. waaw nañu ñëw jeudi jeudi jeudi si guddi. vendredi bi waaw vendredi zéro heure ñu ñëw. Mhm. parce que day ku yéex loo dugg. waaw nga tamit salle bi rëyul yaa ngi comprendre na gars yi teel a ñëw parce que tamit dafa jot quoi. xam nga xam nga moo tax kii pro affaire bi neex. genre concert bi la moo tax mu neex parce que genre ñu doon ñu doon woon xool hip hop sax. jour boobu dinañ dinañ dinañ ñëw toog di ñu bàyyi xel. Mhm. donc dafa war a jàll par force. yaa ñun live la ñuy joué dañu bëgg a won gars yi que ni ñun li ñuy def nii genre musique la business la dafa jot sénégalais yi bàyyi ñu xel parce que jeune jeunesse bi jeunesse bi ñun ñoo mën a wax ak ñoom. ñun ñun la ñuy déglu. Mhm. yaa comprendre mhm. di wax gars ñu jàpp si yaa comprendre ñu mën a jàppale jeune artistes yi hip hop bi gars yi yëpp ñu jàpp si di di woo tamit. jeunesse bi yëpp di woo sama waa say di woo waa Diamaguène di woo Sénégal yëpp di woo ñëpp ñuy bëggee di ñëpp ñuy bëggee Samba Peuzzi yi nañ ñëw ñu def lu rëy mm. def show ñu xam ni que affaire bi genre like it's all about love waaw ayca billet yi ajuma la donc euh, tey la mercredi yaakaar naa ni benn bloc laa jot ci information samay nopp ni moom moo des ci billet yi xam nga ni euh, Grand Yoff ak euh, Parcelles ak li nga xam ni moo wër di billet bu ñu songee billet yi banlieue bi songu billet yi ngeen xam ni billet yi tabarkaal li ci des ba bareetul ñun nag am nañ cinq billets yoo xam ni bëgg naa ko maye te après dinaa ko maye yéen ñi nga xam ni yéen laa koy maye dinaa xool ci page bi kan ak kan laay jox billet yi mais tey dip Euh, tarkal la sama rakk lay sëyal quand même euh, dip euh, maa ngi koy nuyu di nuyu soxna si bu baax a baax mais Samba ak hip bi maturité bi ci sàmba ak yooyu yëpp mën nañu xaar kañ Samba pour le pour kañ parce que parce que xam nga famille. ndax ki muy takk fii la nekk wala moom sama rakk la sama xarit la dafa nekkoon fii nekkatu fii wala. <laughs> moom sama rakk la sama xarit la donc tey euh, bu ñu waxee ci événement le vendredi tey dama doon bëgg sax ci vendredi bi pour show bi ndax dégg naa surprise ne Samba dina fa takkal ah. bàgg fiancé nit oh, xaw ma xaw ma xaw ma xaw oh, ma dégg naa ci saa ko def mais tey Samba lan la ñuy xaar pour euh, pour alxayri bi quoi <laughs> waaw mais incha allah incha allah yàlla baax na loolu day ñëw lu jot yomb parce que ñun ay jeunes lañ yaa ngi ngi si yoon waaw comme comme bépp nit ah comme bépp góor. Ah. am na am na am ñu ngi bëggante. yaa ngi comprendre waaw waaw duma la nëbb. maanaam sam maa ngi lay woo rek ma ne. kañ la kii bi. waaw ah, mais ah, dara du jot yomb du jot yomb. incha allah moom mooy kooku kii. Eh, vie privée la vie privée la. du eh, ci dugg vie privée la xamal la xamal live like <laughs> xamal su may su may su may bañ a toon si question bi day mel ni daal lu may daw. su fekkee genre like da ngeen bëgg a wax. waaw mais vas-y. non non <laughs> non man moom su may wax dama ne sa son bu ma koy déglu. love bi ngay way pour kooku la man foofu laa. ayca nañu avancé nañu avancé man a na ku ma bëgg. <laughs> yàlla mu ngi ñuy suturaal bëggante nañ mu ngi may jàppale si lu bëri. yàlla baax na yàlla ñu yàlla jàppale sama yéene si moom ma def ko. it's life right yàlla yàlla defal la jàmm yàlla yàlla defal la jàmm mu yërëm tëru noonu maa ñëw ci yow. <laughs> Euh, dip <laughs> dip nii euh, looy wax fans yi nga xam ne ñu ngi seetaan pour ñu waajal li nga xam ni mooy bande du Grand Théâtre. waaw Samba wax na lépp. man amatuma lu ma si yokk. loolu wax leen gars yi ñu teel a ñëw. teel a jël seen ay ticket parce que léegi mu jeex après di leen wax ni surprise yi si am bëri na. waaw son bu bees bi Khalifa fa laa koy njëkk a joué ni ma ko nara a nag ku yéex doo ko fekkee. voilà. live band yow Samba mës nga yow. yéen nga joué. yéen waaw temps bi yëpp année bi yëpp sama concert yëpp live laa koy joué. ok ok yàgg naa ko joué parce que yàgg nañ ko joué bëgg nañ daal di ko gën a joué xam nga Covid bi dafa wàññi woon lu bari quoi mais bi yoon moom bëgg nañ ñëwaat en force ci affaire yu bëri ci domaine yu bëri changer affaire bi mu changer quoi parce qu'on a plus besoin di répéter même concert yi même affaire yi non non non dañuy indi leneen bi yoon. leneen bi yoon dafay gën day gën non non everything everything yëngatu love lépp. lép lu mu laaj rek. ñu def ko fuñ ko soxlaa rek waaw am ñu daw ñu dara. maa ngi xaar maa ngi xaar uh, dib si taas mba. ñu ngi xaar ay wax ñu loolu. wax ñu ñi laajte billet yi nañu xam ni benn bloc ci des. waaw benn donc wax ñu fan la billet yi am. waaw Aba bu ñu yéexee rek ñàkk point de vente yi donc euh, ñi nekk Rufisque mën nañu woote ci 77 154 55 84 je répète 77 154 55 94 ñi nekk Grand Yoff 77 je répète

77 585 79 75 ak waa Wakaam Yoff Almadi 77 129 euh, 99 21 ngeen daal di mën a jot seen ticket. fi ñu toll ni nag euh, man comme yëfi hip hop la xam naa ni Pape Sidi Fall daf ma ci jéem bu ma jéem a cee génn mais taxul ma génn ci dinaa ñëw fekk Samba ci benn son euh, ñëw fekk Dip ci benn son te li ma ciy sol du nekk benn ah. su ma ànd ak damay sumeeku bu Dip ñëwee ma sànni hip hop dama ciy dugg takk ci Dip leen ci page Instagram.